réew mi moom dafa mel ni léegi dañoo jëfur ba moo taxit lu ne boo boo gisee lii sax dugg ci réew mi dëpp daaw ba ren ñoom dañoo mel ni ñu saxilaar waxante lu bon di bantey tànk yéeneente lu bon liggéeyante lu ne la ñuy def moo tax sax xam naa ne yàlla wàcc fi mbas mi le te loolu lu ñu jara moytu la lu jara moytu rawati nag man politique daal damaa defee ne léegi dañoo war a seet Sénégal nuñ koy defee politique daal bu ñu yeboo bu ñu defatee politique bu nit ñi am ay solde yooyu bu ñu am ay ay poste yu rëy yooyu ñu leen di fay ay indemnité boobu ndax ñu mën a politiqueal seen i mbokk politiqueal seen gox mais avantage yi ci ne tax na léegi ku yaa ngi bëgg rey sa morom loolu musiba naaru laay la xam nga ni yii fi xew fan yii ak yii ci ay kilifa lu ñaaw la loolu kenn mësu ko gis te bu ñu moytuwul billaahi la wax gis nga tu Sénégal gi li ñuy dal ñëwagul sax lu mel ni aussi njiiti réew mi dafa mel ni day seetaan. boo yoree parti d'accord parti nga yor mais am na yoo xam ne bu amee da nga koy faj boo ñaree boo naree tàggoog moom nga tàggoog moom mais on fait trop de conciliation dañ fii dañuy jubale dañuy nekk di wax yoo xam ni bu ëllëgee day juraat leneen wax ji ko indi moom ki ko wax moom moom moom xam na ko moom xam na ko bu baax man Moustapha Lo maa ko yóbbu ci Macky Sall mu ngi may dégg xam na ko maa bëgg a boole Ablaye Sylla mu yóbbu ko ci Macky Sall Macky bi mu njëkkee ñëw fi man la doon àndal ak Jibril Waar ak ak Mbaye Ndiaye ak ak AVC ñuy wër fii booba amagul parti mais aussi gis nga nit ki aussi boo ko amee mu nekk sa wëllëre nekk si lépp sonal la def la lu ne xëy na même am na comportement yu da nga koy da koy jàng yaa koy mën a manaat mais warul du ko bàyyi waaye boo ànd ak nit ba yàgg. mu mu mu rey boppam ci yow te léeg-léeg bu la bëggee gis du la gis bu bëggee wax ak yow du wax ak yow léeg-léeg bu jubloo nga dem feneen mel ni ku ko xoddi mais day rebelle wu yooyu aussi nit ñi dañ ko war a éviter soo amee ko xam ne boo ko bëgg dox nga téye ko di ko manager di wax ak moom te te boo ko yéenewul dara bugg ko jox mais boo ko xoddee sànni te mu xam lépp xam xam bokk ci biir te Moussa Lo dafa garaaw dafa xam lépp ci biir parce que presque fu la dëkkoon c'était son frère kër gaag lépp la xam loolu mënat si ko mais boo ko bàyyee nii bëgg ko bëgg bëgg ko teg lu lu kenn xamul tamu tamu tamu tamul gaynde moom day day wax rek xamuloo Moussa Ba Moussa Ba bonul c'est que da il da xam na ko gérer rek man def naa sept ans moom fii ci sous section Touba mosquée mais dama ko gérer woon bu waxee ma tàpp tapal ko dafa mujj ni ma yow loo ma wax dinaa ko def dafa am nit ñoo xam noon lañ bindoo te boo ko jëlee noonu nga koy mën a gérer mais mun na ko jeere ba mu neex la nga boo ko sànni ni ne ne kuy sànni day wax njaxum bu ko géré woon bu meree mu woo ko mu añee kër ga daal dem kontaan bu kooku du am benn problème mais on le laisse parler c'est parce qu'il est furieux te dafa xam moom gon la li gon la li Macky Sall sax xam na ko man xam naa ci dara waaw il est dangereux moom kay moom nañ ko arrangé buñ koy dàqit xëy na moom it am na stratégie boppam de Moustapha nee naa leen moo dàq politique ci àdduna yéer na mbir mi xamul fu mu jëm moom am na fu xel mi ne day kaas ñu dax ko mu nekk loolee bu ñëwee mu dugg ca man xam naa ko nag rajo laa nag du ma ko wax mais moom bu ñëwee naa ko ni lii nga nar ndax xam naa ko am na loo xam ne lii moom bu nandee rek na mu defoon ca PDS lay def fexe na ba Ablaye Wade dax ko bi mu ñëwee Macky Sall jël na ko ñu réhabilité ko fay ko jox koy postam fii tamit mu fab nay kaakeem nañ ko bàyyi mu dem. bàyyi ba kenn am nga naan da ngay génne ñëpp moom daal ku wax njaaxum dàqal koo xam ne mënuñu ko gérer nañ ko génne. loolu mooy franchise bi mais nañu woowaat ak ñi wax ñee li wax le ñoom ñëpp doon wax ku nekk ay wax njaaxum ci parti bi nit ñi da ngay wax a wax a ba bëgg a dee lu ne la ñuy wax te kenn du leen sanctionné kooku kooku bari na ci moom wax na nañ rek le ka moom bëgg naa dem li muy def daa bëgg a dem nañ ko bàyyi mu dem ci jàmm ak salaam li mu wax xam na ko xam na lu garaaw ci biir parce que ci lay dund dafa yeewu bu duggee ci biir day lox moot da lay dugg ni duusu ba xam la ba nga jeex tag lii ma la wax man xam naa ne xam na mag saal ba mu jeex tàkk xam na Marème Faye ba mu jeex tàkk xam na kër ga xam na ñëpp gouvernement bi it xam na ñëpp jaxasoo na ak ñëpp xam na ñi ci ñi ciy mbëkk ak ñi ci dul mbëkk te gaa yëpp ñëpp a boo yéeree gaa yi fi mu ne moom dem ci xam bu ko waxee réew mi tàkk mais nañ ko woo buñ ko woowee ni ko comme que dangaa bëgg a bàyyi wala lii comité dër dàq na la moom mu dem ñu dem ci salaam waaye buñ di ko xas ak di ko di ko aw rabu àll boo ko jamee ba mu kii nga nga dikk di ko deew nga di ko dugg da lay il va dire des choses ici yoo xam ni de détail lay doon bu ñu yeboo affaire bii moom nañ ko woo comme que moom bëgg naa dem nañ ko bàyyi mu dem démissionné na vice président nañ ko woo buñ ko mënee buñ ko mënee dàq ñu dàq ko buñ ko dàqee moom mu dem yoonam mais buñ fu sulee souligner scandale dana fi wax loo xam ne da ngay tiit lépp la fekkee te il est dangereux. ñiy xuloo nañ leen woo ku ci mën a toog toog ku ci mënul parti bi dafay am rigueur parti bi day day yoot di yoot di yoot ba nga xam ne président nag ma wax la moom moom moom moom moom noonu la mel day ëffal léeg day day gis ñaar ñuy xuloo man xam naa ko day gis ñaar ñuy xuloo mu ëffal moo ko moo moo koy tey moo ne comme ci ne woon yee nga toog mais day du mooy ree rek <laughs> ëffal ëffal ba gaa yi jëfur mu door leen àtte lu baaxul ñi fii léegi ku ci ne bëri rek téegu sinon mu wax wala mu def njaaxum